ah gis nga loolu. man loolu moo jaaxal la ma. dañoo fënd ci naax bi rek tas yaakaaru blanc bi. waaw xaw tuuti ak euh, blanc ci kaw. mu ngi noonu. Ah, waaw moom de loolu ma yéem man man xamoon ne noir na. xol day gisee xol day te olof na tombé waral ay gaaf. ndeysaan macha allah ñu ngi noonu ma bàyyi la nga nuyu suñu bokk. a mm-hmm. <laughs> di ñu seetaan. di xam naa ne plateau yi moom neex na gars yi ba pare Ramatoulaye Babacar moom fi mu nekk gars yi ngi koy enjoy bu baax a baax a baax kon yàlla seen jàmm yàgg yi ñuy seetaan. amiin yaa rabbi ñoom ah. ñoo tax ñu nekk fi sax ndax bu ñu seet bu ñu seetaanu toon duñ fi nekk tey mi ngi noonu macha allah. kon nga ceegaala ma kontaan nañ si yéen mi ngi noonu su ko defee sans plus tarder ñu daal di dem seetaan loolu nga xamante ne mooy yëglekaay yi di kàcc plateau bi. mercredi 1er décembre 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu lamb lañ koy doore yëglikaay bi tey xëtam mu njëkk la xëy gën caa fës bokk na ci la nga xam ne ni fi mu nekk nii olof a koy faral di wax loo defu waxu lu aay di njàmbat lenn lenn maanaam li fi def waxu fi fan fan yi ñu jëm mooy diggante Papa Sow ak ka nga xam ne moo di Siteu combat ba nag le 5 décembre daal maanaam dimanche ji nu jëm lay am moo tax na tey koo xam ne nii daal bëri na ba bàyyi bëri yor ay mbër di booy kayre di ab technicien xëy na tey joxe ca xalaatam parce que nag daa jàpp ne ñoom ñaar daal boo bëggee dégg dëgg moom defet dañ ko tere ku ci nekk ndax ku ci nekk defet du baax ci yow ndax jàpp na ne Siteu fa mu jóge diggante ba guy gi jële fa defet gëj a ñu ne déet na waaye Ama Baldé mu jëkko daan moom tamit mu gëj a bëre lool moo tax nag mu jàpp ne kon defet jig na la ñoom ñaar tamit ñëw na ca combat ba boo bëggee dégg dëgg ne na tamit ci wàllum favori moom daa moo tax nag booy na ne moom moo dem favori waaye nag favori ba nee na lu bëree bëri de maanaam daal légèrement la ko ko jox comme noonu ko tubaab yi di faral di waxee loolu mooy gis-gisu booy kay rek ci boobu combat ba tey yemu ca ñëw na tamit ca combat ba di wax yàggaayu combat ba tamit nee na bu bëggee dégg dëgg ah mees na ko caa xaar maanaam mu xaw a tuuti maanaam loolu ay gis-gisam la wala boog waxam la moom Boy Kaïré mu mel ni kon daal fi mu nekk nii Siteu Papa Sow moom loo ci mën a dégg Boy Kaïré tey daal xëy na ngar daajoo sunu lamb wax fa xalaatam ci boobu lépp combat balaa noo dem dimanche nag le 4 décembre ci diggante bi am na combat boo xam ne tamit jaar du nekk waaye daa mel ne nag gént ga day nekk réalité wala dëgg ka ko fas yéenee def mooy jax la 4 diggante caatu daawura fall ak ka nga xam ne ni moo di journée la reef daal la ko sunu làmb xëy tay tudde ñaari espoir yoo xam ne fi nekk nii ku ci nekk ñu ngay xool kan moo dàq bëre kuy dem ba sa morom loolu samedi la yëglikaay bi jàpp ne ca lay am loolu sunu làmb xëy tay dina ko wax kenn koo xam ne nii moom dimanche ji nu génne wane na boppam muy Forza bu Fass yëglikaay bi nag moo tax tey mu xëy sam boobu laaj ne nag kan mooy arrêté Forza ndax nag lu toll ci juróom-ñetti at yi yoo xam ne Forza gëj naa dégg mu tam moo tax yëglikaay bi xëy tay laaj kan moo ko a arrêté teree koo demati si mu jëm wala boog maanaam tàqale ko ndam moo tax yëglekaay bi xëy tay samp ab laaj wala mu samp ay tur yu mbër nee na guy gi regret laaj dëgg yàlla numéro 2 nee na ñii daal daa mel ni maanaam bëti forza fa la ko samp ci ñetti ñooñu sunu làmb xëy tay wax nu lu mel ni ki noonu et puis ba mu bokk muy Fass Ndakaaru nag bi nee na bu bëggee dégg dëgg donte seen i sorti maanaam ñaari ñu def ci ay grand combat yépp dañ koo gagné Pape Ndoye gagné Abou Niasse Forza gagné Pakala waaye Tafa Gueye may directeur technique ba daal lan sunu làmb xëy tey wan dina xam ne daal bu bëggee dégg dëgg daal la mu xëy xam ne wala boog écrit boobu xam ne daal bul nar a teg yoon ne réunion bu dëggu daal la ñuy waajal fi mu nekk nii ñoom waa écrit face ak Dakar yëg li kay moo xëy tey ñëw dina ko wax kenn koo xam ne ni moom ku ko daal dégg maanaam ci làmb xaman ko bu baax a baax muy Mbiita Njaay sàmm ji nu génn nag ñu wuyu a boromam maanaam génn àddina moo tax yëglekaay bi nag xëy tey daal tey maanaam di ko delloo njukkal di ko rendre hommage moom Mbiita Ndiaye kon nag la ñuy def moo ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla jéggal te xare ko aljana moom Mbiita Ndiaye moom nga xam ne génn na àddina parce que nag kullu nafsin zaa'iqatul bi suñu borom a ko wax foog kullu man alayha faan ya ba tey wax yàlla la bakkan bu juddu da nga faatu waaye lu tooy da wow kon nag ku fi des yàlla na fi yàgg lool te wér waaye ñi ngi wuyu seen borom yàlla na leen buur yàlla jéggal te xare leen aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nag loolu dogali suñu bi la Babacar seetaan nañ loolu nga xamante ne mooy yëglekaay yi euh, tey daal loolu la ñu indi doon su ko defee euh, ñu dem euh, ak suñu làmb suñu journal bi <laughs> Boy Kaïré sur le choc du 5 décembre mhm. défaite interdite pour Siteu daa mel nii ni Siteu daal amul droit Euh, à l'erreur si combat am boobu. waaw défaite interdit pour Siteu man sax bi ma koy jàng dama défaite interdit pour ñoom ñaar ñëpp waaye moom pour Siteu la wax mais man. Mhm. dama naan pour ñoom ñaar. Mhm. parce que euh, du ñàkk nag ci ñoom ñaar am na ku ci défaite xaw a tane ci moom mais dama naan am na ku mu ci tane ma foogu ci défaite ji am na parce que lu bu fekkente ne moom ak Siteu mhm. jiitu ko si làmba. yaa ngi dégg carrière carrière bi mu defee ko Siteu defewu ko ndam yi mu am Siteu amagu ko waaye tey làmb boole na ndax Siteu liggéey na ba dab ko. Papa Sow euh, dafa am lu war ci kawam parce que daa jóge Fass dem te ñibbi Parcelles Assainies fa écurie mhm. muy écurie bu bees mu war a génn génn bu njëkk. Mhm. est euh, bi ci des mooy dafa amoon defet di dem ak bi muy mujj a bëri papa xaw na a am tuuti victoire ci làmba. mu soxla victoire. Mhm. kon defe naa ne defet du ko ci. yaa ngi dégg mais l'on dit ah nee nañ Papa Sow légèrement favori. waaw non waaw non favori waaw parce que loolu c'est normal parce que boo xoolee ba muy dugg ci ci làmb si làmb ay 2003 2004 la ñëw ci làmb. boobu mhm. ci làmb. bëri na par Papa Sow ay ay maanaam palmarès bu tas Papa Sow est que amul presque 30 combats. Mhm. ci làmb. Mhm. te victoire yi ëpp fuuf defet ya kon ça veut dire que moom mooy favori bëri nag ay VIP bëri nag Lac de Guiers 2. bëri ay mbër yu bëri Ama Baldé yaa ngi dégg kon foofu. Euh, moom ak lu man a xew moom mooy favori bu combat bi mais favori ay papier la kayit maanaam dañuy xool palmarès ñu ne mooy favori. Mhm. ci côté mhm. waaye nag di nga ñëw ba ci ba ñàkk bés ba. waaye defet bi moom pour ñoom ñaar amu ci ku mujj parce que loolu dal Papa Sow euh, lu ko dal ci defet bu mu mujj ak euh, yooyu ma la wax yépp mhm. Siteu tamit lu mel noonu ko arrivé ndax Siteu dafa jóge ci moom ci jóge ba tey bëriwaatul. ñu di ko xaar combat bi yàgg ba bi ci des mooy te gis nañ ne lamsaar ren def nañ ay sorties yoo xam ne dañ ko ñàkk ñetti sorties yi ñu ma gis ñu def ko ñetti grand combat yi ma gis benn lañ ci gagné mooy seen diggante ak ma moteur. Mhm. te boobu bi ñu ko gagné par avertissement la ko points sa gagné mais ne kuréel dañ ko daan Abou Niassé bras droit Siteu la kon bërki démb dañ ko daan Siteu tamit war a ñëw kon tey Siteu itam defet du ko arrangé ci côté yëpp. Mhm. boo jëlee ci côté moom Siteu ci boppam ak écurie bi muy kon ça veut dire que combat xam ne nii vraiment combat ñaari mbër yi boo bëggee dégg Ah, parce que faw am ku daanu. Euh, euh, non forcément. forcément alors que ñoom ñaar ñëpp on dirait que ñoo ngi subir ay euh, pression bien sûr waaw am na ay pression yu ñuy subir mooy li ma la wax li ma la tegal léegi. si seen si seen écrit yi ak kii sàncaat écrit bu bees war a mhm. bu bees. loolu lépp mhm. nekk ci kanamam mu boot ay xale ñoom garab dina ci ginnaaw ak yeneen xale. c'est-à-dire que tey moom ndam moo ko arrangé. leneen arrangé wu ko. si loolu ma la wax noonu mu dal ko ci di lamsaar bi mu génn ren génn yoo xam ne grand combat yi ñàkk rek ci ci gisagu. Mm. faar yi ñetti combat yi mu def yëpp ñàkk ñaar yi benn bi leen mm. mm-hmm. tamit ba pare mu jógee waat ci defet comme papa ni mu jógee ci defet. Mm. kon ndam moo leen ci gaaw. Mm-hmm. waaye nag ñàkk combat bi tamit. Mm-hmm. taxul kenn ci ñoom ñaar bàyyi làmb. parce que ku ci nekk bu ñàkk amee parce que faw ñàkk am bu ñu bëree. bu ñàkk amee tamit ku ci ne am na raccourci boo mën a defaat. jógaat dem am na yoon moo mën a jaaraat mm. pour génnaat dem parce que lamb noonu la quoi sport la ñuy def quoi dans les deux côtés mënul am nii na comme ni ma koy waxee mm-hmm. saa su ne ku nekk na nga accepter loolu nga xamante ne mooy sa défaite rek te nga def tout pour relever wu prochainement c'est ça mi ngi noonu caatu Daouda Fall euh, Kawo Gourdin c'est ça moom Gourdin Kaaw yéen alpulaar mu ngeen di wax Kaaw kaw waaw ci alxuraan mooy nijaay wala. mooy mooy tonton mooy nijaay mooy tonton tonton c'est ça c'est mhm. ça. ce soir Jax offre une journée de rêve. ce samedi ce samedi. waaw bu dee su ma nee ce soir xam naa instant yi seen fit bi dina. Ah, voilà <laughs> <laughs> mu yàkkamtee suñu combat. waaw ba ba ba ba dina ko bëri loo <laughs> samedi ce allah. parce que li tax mu nekk combat de rêve combat gént ba nekk tey réalité. Mhm. parce que euh, foofu dañ ciy profité remercier Idaali Ñing parce que promoteur bu ñu wax Idaali moo initié woon tournoi bi ñoom ñaar ñuy bëri di bëri tournoi bi dem ba ñoom ñaar ñu war a daje muy final. Mhm. yàlla dogal moom yeggalewu ko jax nag jël ko combat ba tëgg ko amateur yëpp di xaar làmb jooju ku di nga yàkkamti seen combat mhm. moo tax samedi tamit wax dëgg yàlla Jax indi na combat bu nar a neex yàlla nañ ci mhm. yegg mhm. waaw yoo xam ne la fi mu nekk nii ku ci ne yaa ngi ci benn dynamique ku nekk jàpp nga ne yaa gën a ñor sa bëri mais ñoom ñaar ñëpp a ñor ci bëri ndax kaw Gourdin mii talifoor ga mu ne bi ñu koy gis expérience bi mu am bëri dàq koo bëri jafe na mais cat daaw dafa daan nekk comme li olof naan mbuusu xale bu ñu sol yàpp ma. Mm. yaa ngi dégg. Mm. loolu te loolu da koo dal. xale la ci âge. Mm. mais ci biir làmb ak li ko topp. du xale. macha waaw loolu day am mm-hmm. mi ngi noonu Babacar ñu daal di jàll si kooku nga xamante ne mooy Forza. Mm-hmm. invaincu depuis huit ans. Mm-hmm. cinq victoires euh, d'affilée qui pour arrêter Forza. ku koy arrêter ku koy arrêter. Hmm? kon ramatulaay Babacar Babacar bàyyi yooyu ramatulaay Babacar yaa may déconcentré de. non ah yow yaa concentration si journal lañu ci journal lañ kon nañ concentré wu gars yi kon dama ah dama xalaatoon sama xalaat rek. waaw gar gars yi nañ ma naa concentré wu. bàyyi lii concentré wu ah. mhm. ma lay déconcentré. Eh, bàyyi di ma déconcentré. Oh, ñoo ngi kon ñoo ngi jégalu ci déconcentration boobu du yoon kon maa ngi jégalu mais loo ci mën a dégg rek c'est normal parce que Ramatoulaye ak Babacar. Mhm. foog muy am mbiloo mbaaloo. dëgg la <laughs> affaire yi mën a neex mën non gars yi moom lañ bëgg sax normal faut pas concentrer de temps en temps faut ñuy ree di këpp génn tuuti si lamb ji di ree di féexal xol yi. c'est la vie mais Forza boo gisee yëglikaay bi xëy tay samp bi parce que xaw na gëj gëj na daanu. Mhm. maintenant bi ko Pakala daanee ca Thiès lu mu jot daanu ba tey mu ngi ci cinq victoire d'affilée ki koy ah mooy adversaire bi lekk avance am rek parce que tey mbër moom buy daan di dem. Mm. ah ku ko bëgg a arrêté da ngay lekk am na ñu bëgg bëri ak moom am na ñu mu bëgg a bëreel. Mm. lu mu ci am nag bu bu jëlee beneen combat dañ xool ndax ki muy jël prochain adversaire mën am na ñu ñu gis naa fi ñu tudd guy gi rëg rëg ak Lac de Guiers 2. rëg rëg guy gi ñoom ñaar dañu ne ci guddi gu bës dëggul parce que bëree guñu. Mm. ñoom ñaar fu mu nekk nii dañoo wal mburu te olof na ko wal mburu du dem dëgg ngi dégg comme dañoo wal mburu nag dëkk ba ñu jëm mooy arène nationale war fa bëri ji pour tàqali ko mhm. pour ñu xam ku ne fooy aw buñ ca jógee xëy na bu keroogee force à foofa danañ xam kan la fa war a mën a bëri mais ñoom ñaar ñëpp ku ci ne war na mën a bëri ak yow parce que euh, lagrose as di rakku forsa mhm. Reug Reug daan na ko guy gi mii itam defe naa ne tey euh, mook forza bu leen laam boole tamit bu ñu bëree day neex Lac de Guiers 2 tamit ñu ngi koy tudd waaye foofu li ma waxoon laay waxaat pour combat Lac de Guiers 2 day dépendre actuellement ci Lac dëgg Guiers. ci Lac de waaw mais lépp mën a nekk ko d'accord mhm. mi ngi euh, su ko defee ñu daal di jàll ci dana ñëw Fass Ndakaaru ci une réunion de vérité. Mhm. waaw réunion de vérité de waxtaanu dëgg. waa dëgg. waaw am dëgg nag dama lay wax ne la àddina. Mhm. jafe-jafe boo gis muy dem ñu koy tudd. Mhm. ñu naan jafe-jafe jafe-jafe nangam sangam problème yi problème ya des fois dëgg moo fa dul nekk te dëgg foo ko jëlee yàqu ko wallaay sëriñ bu mag bi si Ahmadou Bamba yàlla nañ ko yàlla fayal sax dégg naa lu mu nekkoon signature mhm. waaw maanaam daan ñam jàmm waaye jàmm ja maanaam ci kaw dëgg lay lalu nee na mm. maanaam balaa jàmm am mm. dëggay na ci suuf jàmm ji ñëw toog ci kaw kon defe naa ñoom itam bu jàppee ne war nañoo toog def benn réunion boo mm. xam ne pour réité bu vérité la waxante dëgg xool ci bët defe naa loolu ñu ko defulee ak euh, Fass Ndakaarook Equivox sa seen TV TFM ak ñëpp a ci yem groupe bu mu mën a doon maanaam la kay toxal lay tax dëgg dëgg dëgg dëgg mu avancé jëm ci kanam mooy bu ñuy ñuy toog di di waxtaan. Mm. te bu ñuy waxtaan di waxante dëgg. te yàlla rek tax. Mm. wax itam la mën a nekk. Mm-hmm. defe naa loolu ñëpp la war parce que bu ñu ko defee koo dina am dinaa xam li ramatulaay man ramatulaay dina xam li ma man su ko defee ñu avancé àddina jëm kanam waaw bu ñu bu ñu maanaam bu ñu di dencalante dara quoi nañuy waxante mhm. réalité rek ak lu mën a xew rek nañuy waxante dëgg mais nag nañ koy fexe ba itam di ko def mhm. ci teggin mhm. ndax teggin dafa am solo trop wallaay am na solo am na solo Babacar mi ngi noonu euh, ancien lutteur de Fass décédé Euh, samedi dernier. hommage à Mbita Ndiaye. waaw moom mbër la woon bu daan bëri nekkoon Fass. góor a ñu doon wax tamit yàlla na ko yàlla jéggi taxare ko aljana lépp doomu aadama tudd ci suuf parce que wax naa ko léegi may tëj ci revue bi kan yàlla moom moo nu sàkk te bi mu sàkkee indi ñu fi a moom lañ jóge ci la dellu yàlla yàlla dimbali na ba sa jamono bi ñu fiy nekk mhm. Ah, mhm. yàlla nañu nekk ci lu nga xam ne nii daal mhm. ah dinañ ci am yërmandeem am ci gërëmam parce que yàlla yërmandeem moom nan koy sàkku saa su ne kon góor yàlla na ko yàlla jéggal te xaaral ko aljana moom mu doon ci suuf suñu tamit bu ñu ko rendre remas def na li ca war mhm. ah, parce que tamit def na li ko waroon ci carrière am nga mhm. bàyyi ko mhm. jàpp boppam nekk njaa euh, euh, jàpp njaamuram euh, nekkoon fi nga xam ne moo doon yaraax nekkoon écurie mu ko xam ne allah tey am nañu mbir yoo xam ne tey moo leen dugg ci làmb kon defe naa tey ko commence mooy delloo mbattu suñu njaale rek. Mhm. yàlla na ko yàlla jiital taxara baal suñu papa bi te njaay moom. mi ngi noonu ñu ngi koy masaw bu baax a baax a baax et puis euh, que la terre lui soit légère. suñu borom bu soxlaa ku bëgg a ñàkk baax. lii mooy àddina. Mhm. lii mooy àddina ñun ñëpp moom la ñuy xaar. yàlla ñu ñaan yàlla mujj bu rafet moo ëpp solo. Mhm. mi ngi noonu Babacar tey daal lii lañu indiloon suñu mbokk internet yi. su ko defee mu bàyyi la nga tàggatoo. waaw di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp ah. waaw di leen kontaan di leen wax ne amuñu seen fay parce que gis nañu actuellement ah li ngeen di safo plateau Sidéa bi mhm. chaque jour yéen a koy xaar mhm. kon yàlla seen jàmm yàgg di nuyu soppe yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñoom aw jot mhm. gis nga euh, euh, ñooñu tamit vraiment euh, war nga leen nuyu bu baax a baax ñoom awa Diop. ñoom awa Diop. Adama Ndiaye. Adama Ndiaye Cissé Ngari. Cissé Ngari. ah ak Kéba Dramé. Kéba Dramé. ah ñoom Wakana Akhan. ñoom Kaana. Wakana Wakana. Akhan. Akhan. est-ce que dégg ngay arab. ah ci sori ñu dem. ñu def kon ñoom ñun ñëpp. di nuyu ñëpp cat ba cat leen di bëggee. Mhm. parce que dañ lay bëggee. parce que ñëpp ñuy bëggee Babacar actuellement dañu jël Ramatoulaye téye ko parce que loolu la yàlla dogal parce que ñoom ndeysaan da di ku ma làng rek dañ koy soob moo tax aw ma seen fay Babacar ci yow lañ ko gisee Cheikh Bass tamit kenn du moom borom Kër Massar macha allah tamit gis nga ma yaa ngi koy wax léegi moom duñ dugal ma commenté ko Cheikh Bass moom ko ki may wax la ko doon wax tout à l'heure ma naan ko ki ay commentaire am dama koy gis tout le temps mooy Cheikh Bass Kër Massar la dëgg la Cheikh Bass maa ngi lay ziar voilà baax a baax di nuyu waa diaspora bi ñoom tamit yàlla na seen jàmm yàgg yàlla na seen jàmm yàgg nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi suivre mhm. Habib di la bëggee. Mm-hmm. moom nee na séeréer li ma na de a dégg séeréer. xanaa waaw di nuyu ñëpp daal di la remercier bu baax a baax. di mm-hmm. ñaan jàmm Sénégal di tamit am na loo xam ne faw ñu kii ko mooy grève bi am day ci wàllum transport bi. Mm-hmm. métti na trop tey ci Sénégal yi. dina ngi xëy bëgg a dem mënuñoo dem. loolu nag li ko indi lenn la ci réew mi. état bi encore une fois ñu ngi leen di interpellé waat. gis nga réew mi bu ñu xeeb benn secteur. parce que secteur bu ci taxaw dana paralyser réew mi te la muy perte loo réew mi day bari Mm-hmm. defe naa tey nit ñi xëy war a xëy mënuñoo liggéey pratiquement bi muy indil réew bi defe naa ne fexe woon waxtaan ak ña yor secteur booba ci ba muy teel mm-hmm. moo gën parce que olof ne na waxtaan ca teel mujj ga rafet moo gën bàyyi ba tey grève générale am benn oto dawul bu nga xam da nga def transport te loolu bu amulee yoroo oto yoru mu oto ñëpp ci Sénégal yi yoruñu oto bu ñu mën a dawal ñu xëy seen bopp kon encore une fois état na wax ak transporteurs yi wax ak